effectivement xam nga dafa am lu mëtal leeral élection gare routière élection privée la GIE c'est privé ñoom sax bu ñu d'accordoon seen biir waroon nañu mën a organiser seen propre élection ñu jàppale leen xëy na ci ay forces de lot waaye Euh, xëy na dañuy ñëw gis ñu ñun ñu jàppale leen ñu assister leen ñu organiser leen ko loolu moo ñu siy dugal mi mel ni donc ñu tàmbali woon waxtaan bi ak ñoom ba si dépôt des candidatures mu nekkoon juróomi candidat mais kenn ki dañu ko mujje génnee ndaxte il n'est pas résident à Touba Mbacké la bokk kon ñu dese ñeenti candidat ñeenti candidat yooyu nag ñoo waroon dem ci élection yi bu ñu demee ba keroog sa dimanche bi weesu le 24 novembre ñu mu tenir assemblée générale teewoon nañ fa yaakaar na ne am na si yéen ñu fa teewoon mu def lépp ba ñëpp kii bu ñu paree sa ginnaaw ëllëg sa ma woo leen pour ñu ñëw dëggal seen bopp fii ah foofu nag moom moo njëkk dëggal boppam le candidat sortan jël couleur bu mboq ñeneen candidats yi ñu ne ñoom day dañuy xaar ndax amoon na lu ñu d'accordul woon seen biir GIE maanaam euh, bilan bi mu présenté bi gis nañ si lu kii mais loolu ça ne nous intéresse bu ñu ñëwee brandir que fii mën na leen yóbbu leen fu ngeen xam yooyu tribunal moo koy toppatoo man élection laay gérer. su ngeen bëggee ñuy wax dañuy wax ci fichier est-ce que c'est alors mu ñu baliser yoon bi ba mu leer ñëw leen ñu wax ci fichier bi bu ñuy waxee ci fichier bi ñu ne waaw léegi dañuy dem ci fichier 2018 ak fichier 2019 ah gars yi ñeneen yi ñu ne déedéet fichier 2019 bi du ñu ci bokk du ci bokk ndax am na lu ci nekk dalu suñu xel. ndax jaayum carte yeeg ñoom seen yooyu seen problème mais moom président bi aussi mu fekk si la nag wax dëgg yàlla si fichier 2018 parce que vraiment foofu il a fait vraiment preuve de démocratie mu ne kon comme que da ngeen da ngeen di demee fichier n moins donc kon nañu bàyyi 2018 l'année en cours jël fichier n moins de maanaam 2018 fichier boobu nag boobu ba léegi ñu nekk si di liggéey. dema dem ba si biir ah dëgg la nag am na ñeneen ñu doon ñeneen côté bi opposant am yi laay wax dégg ngeen ñu wër dëkk bii def lu nekk di wax partout ak yéen ay déclaration tous azimuts waaw ah, amul lu ñuy waxul élection du am kii nee nañu su préfet bi nee na di woo na ko lépp dégg nañ ko donc yooyu yëpp ay waxu mbedd la ñun duñu tontu comme saa si ay wax yuy jolli de gauche à droite donc Euh, fichier bi bu ñu demee ba càmbaraat ko xool ma gis ni dans un premier temps barkaati démb laa constaté ni fichier bi amul date et lieu de naissance seen fichier yi ñuy voté amul date et lieu de naissance ma ne ah ñu ñëw ree réunion fii ma ne yéen fichier bi amul date et lieu de naissance de te loolu dafa am importance ci électeur ñu ne ma non. mësuñu ko see def xam nga c'est de l'informel il faut accepter que gare routière c'est de l'informel yu ko nekk maa ngi wax ak kii ma ne leen ah ñu ni ma bu amee carte d'identité turu nit ki rek ak carte d'identité ak kii ni ñu ko waxti numéro de permis de conduire rek baax na loolu la ñuy demee effectivement am ñoom noonu la ñuy demee xam nga tamit numéro de permis de conduire aussi ça permet d'identifier la personne tamit c'est pas maanaam lu ñu wax li tamit c'est pour simplifier le le, le tableau ma ne ah ok ba léegi tamit mën na nekk ba si àgg ñu demati ñu gis ni dans ce fichier là 2018 ñoom ñëpp seen ancien permis de conduire moom la ñu porté foofu seen numéro parce que 2018 effectivement on n'a pas encore commencé nañu mais les nouveaux permis n'étaient pas encore en kii est-ce que vous avez constaté gis ngeen wax dëgg bi donc ñoom ñëpp moom moom mi le président là bu ñu ko suivre bu su élection bi du vote parce que son ancien numéro moo si nekk et aujourd'hui son niveau permis de conduire permis de conduire bu ko présenté méngoowul ak numéro ancien permis bi kon mën soppam sax du vote ñoom candidat yëpp kenn si ñoom narul voté sax parce que ñoom ñëpp seen ancien numéro de permis de conduire moom la ñu mentionné si si si si fichier bi ak ñeneen ak ñeneen mu nekk benn euh, lim bi nga xamante ni bi jar na nga taxaw nag parce que soo gisee ni lii fu ngay mujjee ji si ay problème la mais da ngay taxaw ma ne leen kon dañuy taxaw ñu xoolaat du yofaate délai bi ñëpp mën a ñëw andi seen nouveau permis de conduire ñu dindi l'ancien permis de conduire parce que xam nga boo ñëwee déposé au niveau des services des mines fële ton permis de conduire bu ñu koy récupérer dañuy récupérer ancien bi man sama bopp ak adjoint on a le nouveau permis de conduire mais récupérer nañu ancien bi donc kenn si ñoom narul ñëw voter parce que amatul permis de conduire bu mu bu mengoo ak lu nekk si fichier bi te loolu suñu ko bëggee def mais day indi fii benn problème bi nga xam ni bi mais day day day jaxasoo ñu jël su ay responsabilités. ma ne leen nag jàmbaar ñëw leen ñu waxtaan ñu xoolaat affaire bi fekk na boobu nag moom rek kese képp moo doon candidat loolu tamit si GIE bi nga xam ne da ko bokk ak ay ay nit c'est pas élégant élection da ngay dem ak nag sa ay kii ay ah opposant dafa loolu mooy tax élection bi saf oui mais benn nit ñu teg fii rek ñu kii mais loolu sax dafay nekk benn élection bi nga xam ne bi tamit Val euh, c'est pas de la démocratie mais loolu taxul taxul de ma ma ma ma ma ma reporté waaw moom xëy na loolu la jàpp mais loolu taxul man ma reporté man lu war a tax ma reporté ci fichier bi la comme ni mu leen ko tuddee léegi nag jox leen temps bu diir ngeen ñëw ku nekk indi son ancien euh, son son nouveau permis de conduire ñu dindi l'ancien numéro ñu mën a mettre à jour fichier bi ñu tëggaat ko. ba mu tegu si yoon ngeen dem si ay élection jarul dara mënul yàqamti yàkkamti yàqule te ñun nag bëgguñu fii si dëkk bu tedd bi di fi def li nga xamante ni bi dañuy woo nit yi fële ñu tojante ay bopp loolu taxul ñu andi ma fii si Touba ordre public bi ginnaaw yàlla ak bi ñun lañ ko dénk ma ànd seeg sëñ bi fi nekk sëñ Mountakha Bassirou yàlla fi yàgg te wér mais dañuy dañ di jàppale si si si si si si si dëgg doomu yoon nag dafay ñeme yoon ñun nag yoon dañ koo ñeme ragaluñu ko ragaluñu see dox tamit te si loolu la ñu tegu nag. mu mel ni dañu quelle que soit la situation ñoom suba dinañ amal kan mooy organiser kan bi. ñu naan ñoom dinañ amal élection yi ca la moo ci doon seen taxawaay. boobu élection ñun ñu ñun ñun organiser wuñ ko. est-ce bu dee léegi ñoom ñooy organiser seen bopp seen ay élection mhm. ah bu boobaa ñun daañu jël suñu matuwaay. date bi ngeen loolu dañu si bëggoon waxtaan ak ñoom yëpp tey ñu ànd si man sax jàppoon naa ni xëy na mën mënoon nañu dem ba dernier dimanche su mois de décembre le 29 décembre dernier mois du mois de décembre 29 décembre lay tombeel bu ko defee ñoom ñëpp ñu ñëw surtout que sax comme que dañoo jàppoon ni suba la si benn candidat bi nga xam ne bi kiiwul ñu bare ñëw nañu neewa naa nañu photocopier ñoom ñëpp seen. seen nouveau carte nouveau permis de conduire ñu ñëw ñu déposer ko fii suba après ñu dem ñu dem seen le temps de nous permettre ñun tamit ñu rectifier loolu yëpp tegaat euh, kii bi euh, euh, fichier bi bi nga xamante bi moom mooy ali collège bi parce que élection fichier la nañu waxante dëkk fichier bu wérul dañ koy xoolaat ba mu wér parce que ñeneen ñi nga xam ne bi demuñu te déposé nañu seen candidature ba accepté nañ ko pour le moment mais ñoom ñëpp dañu ne fichier bi fichier bi fichier bi fichier bi nag dañ koy kon càmbar xool ko changer yooyu données am na si aussi ay ñi nga xamee ni bi euh, dañ si def seen ay numéro kese kese mais porté wuñ ko yëpp donc yooyu yëpp ñu ngi koy peaufiner nañ ko donc euh, Arona Seye moom moo yore fichier bi moom mooy euh, moom moo nekk nii Arona Seye donc moom moo si liggéey te pare nañu fichier bi waaye numéro carte de de de permis de conduire yi c'est les anciens numéros. que mais xam nga ni yow ñoo mënuñu organiser élection suñu ko mënoon du ñu ñëw si man. waaw loolu xëy na moom am na mais xam nga man waxuma ko ne dugal xaalisam si campagne parce que man yaakaar naa ni GIE lañu ñu amee ñoom ñoo ku nekk am na autonomie ak liberté di di di di gérer waaye du tax yow nga ne kii la kii rek moom moom may yore yooyu xam nga ni man détail boobu wax dëgg yàlla kii mais tamit bu si defee tamit xaalisam comme <laughs> yooyu tamit xaalis booy wut campagne da ngay def xaalis am lu ko lu mu ko jar waaye maa ngi si masawu parce que tamit xëy na nekk na lu métti quand mais manque ngi si jégalu xam naa ne nag tey tàng na lool nag suma doomu bàyyi la parce que kan yàlla yëpp métti waaye dëgg la wax na wax yu kii mais ñun baal nañ ko ñun amaluñu kenn xaar ma yàlla donc ñun wax dëgg yàlla. benn benn laaj est waaw xam nga mosoon nañu fi toog waxtaan si loolu fichier bi ñu siy waxtaan ñu dem a dem ba su dernièrement la ñu fi doon waxtaan loolu benn bës mu woo ma mun ma Arona Seye nee na euh, numéro carte d'identité yi carte d'électeur yi mënul mënu mënu carte kii yi ni ñu ko waxee. Euh, permis numéro permis yi mënul dem ndaxte ancien numéro yi ñoo kii. Al Arnoussy bi xëccoon na attention am si loolu wax dëgg yàlla mu woo ma tamit bu ma woowee ma nekk que ah, ah loolu ba léegi comme que ancien permis la mu ma a ma ne que ba léegi mën na jàll mais boobu man tamit damaa jàppoon ni dafa am si biir fichier bi date et lieu de naissance xam nga fichier bi moom moo koy liggéey c'est-à-dire que man xam nga ak samay liggéey mais dafa am ku nekk lu ma lay jox nga ma koy liggéeyal ñoom dañ may liggéeyal samay élection présidentielle ñoom ñoo may macha allah